jëf TapTap Send soo téléchargé application bii di TapTap Send dinañ la may 10 euros ak code comme Lutte TV. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yu ñu seetaan ci luttetv.com ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax tey ñu am un plateau exceptionnel sama càmmoñ njagandooy la grand champion de Thiaroye yi sama ndeyjoor Tapha Gueye 2 bu la neexee nga ne Trabaxa bu la neexee nga ne Ousmane mbay Tapha Gueye jotaay bu mel nii am na lu ko doon léemu ma bàyyi la nga nuyoo. waaw di nuyu àdduna gépp di leen wax law la cet law la xel kulluhum doomu Adama Ndiaye ndax ba palaato bi maa ngi fi doog a toog ndax xam nga ne àdduna lépp dafa neex euh, ba pare baax lii nii wax dëgg yàlla damay ñaan yàlla suñu borom mu continuer te boo xew xewlee ñu dañu war a ñëw ndax palaato yi mel nii dama koy bëgg ndax kii boo xoolee xam ne verre yi y a chose mm. <laughs> jàmm. macha allah sama càmmoñ Ndiaga Ndoye le grand champion de Thiaroye nekk mbër boo xamante ne macha allah def na lu ne ci làmb parce que turam yàgg nañ koo dégg ñun ñi nga xamante ne buñ tàmbalee seetaan làmb yàggul lool Ndiaga maa ngi di la ziar. waaw asalaamaaleykum maa ngi lay fay bës di la kontaane di la bëggee di bëgg lool lool si jotaay bi di sant yàlla di julli ci Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam di nuyu mbokki Thiaroye gépp di wax ni kontaan naa vraiment vraiment kontaan naa waxtaan wi lépp tey moom macha allah. mais Ndiaga yaa ngi ñax yaa ngi fu mu toll nii dafa mel ni entraînement a doy waar. fi mu toll nii yàlla xam na ni dañuy entraîné ñun guddi ak bëccëg te xamuñu lu xew. donc yàlla def tey ma ñëw fii ci plateau bi fekk fii benn mbër boo xam ni dañoo bëri woon 99 mu daan ma à 3 appuis booba face moo moom làmb ji gars yi yóbbu ko jox ko victoire mu dem tey yàlla di ñu omat ba ñu daje plateau ma xam ni tey combat bi mënul jaas. mais man de de waxaguma sax saa ay wax. mais ba balaa loolu balaa loolu man dama bëgg xam ñu xamul njagandoo yi bëgg naa parce que xam nga dégg moom génnul làmb ji mais njaga dafa mel ni dafa yàgg Espagne bëgg naa njaga wax ma lan mooy carrière am lan mooy palmarèsam ci bëri dóor ak ci mbapat ñëwal ma ci njaga loolu dama ciy sawar lool parce que nag ñi doon seetaan njaga ba tey ñu ngi fi kenn deewagul yàlla dogal na ma max mbapatu max mbargan laa lu xeekoo ñëw fa jël fa luur ak lese jóge fa dem mbapatu Pape Diop Pikine téye ñetti at kenn mënu daan Pikine gépp ak may déglu yàlla mi ngi tiim xam na ko moom jamono jooju kan nga bokkal génération Tafa Gueye de mii moom moom lañ muy jëli bi ma daanee ñëpp ëma seen su ma musaa na ñëw si mbappan mi ndeysaan ndam si yàlla laa fa mi nga gis nii maanaam dama téewoon mbappat mi su ma loxo si ñi yow seen saa yu ma musaa na ñëw ci mbappat mi ba moom mbappat mi gars yi dañ koy jëli mais bu ñëwee du bëgg bëri ak man ndax boo jamono yooyu danoo xawaroon nekk bu ñëwee du bëri ak du ma dëkk léegi nag Ndiaga Diop da nga wax ne kan Ndiaga Ndoye Pikine la ñëw daan ñi fi ne war a futteeku moom yàlla dogal maag moom mosuñoo bëri si mbapat boobu. yow Ousa Sow. aussi mosuñoo bëri. am na beneen mbër bu téewoon mbapat muy Pathé Balde yéen yàlla dogal na daan naa ko quatre fois. ci oh, wallaahi azim. ñi ko Pathé ñi koy seetaan ñëpp xam na li may wax dëkk daaru. mu daan la ñaata yoon. mosumaa daan Pathé Balde fu ne daan naa ko fa. te moo gënoon a moo dàqoon a bëri ci Pikine ëppoon ci sañ-sañ ëppoon ci doole nga daan ko quatre fois ma daan ko quatre fois mujj gi ndeysaan benn magam bu ñuy wax Kumba Balde moo ñëw ba si man ne ma paate même bu la dëkkatee bul bëree moom yaa ko man hmm? kon jaga yow doyoon nga waar ah. non dañuy wax parce que làmb nag sawaay ñun dañ ci dañ koo manoon doon ko fowee. Hmm. yàlla dogal ñu teel a génn dëkk bi nag dem wuti teraanga. ban année nga dem Espagne. waaw ñoo kon bi ngay dem Espagne boobu Espagne xewagul sax. waaw boobu boobu dafa yàgg. macha allah te ba léegi yaa ngi foofu wala yaa ngi. waaw non naa bu yàgg nag. ñibbisi nga waaw ñibbisi naa bu yàgg. da nga fas yéene takkaat ngeen bu moom laa bëgg fi ñu toll nii Tafa Gueye 2 boo may ah, revanche xoolal këram laa koy fekk. 2. waaw booy mais yi ma seen nii wala. 2 xam nga ku ñu ko jàpp nii. Ah. ay tamare la naan nii jus tamare yooyu moo tax muy néew di ñàkk nii daxaar ah. waaw moom la naan nii moo tax mu ñax nii. dégg naa daxaar du saf ñaari yoon. doy kii kii dama ko daan léegi xam na kii dina dee kii bës arbitre bi dafa ne par mu dóor ko góor droite mu taxaw ma fekkaat ko fa ni mu daan ay champion daan nag li ma wax dëgg la ñoom ñëpp moo daan wax nañ ma ko avant muy bëri moom ñu mu daan ci ay mbabat bari na waaye man leen bu ñëwee dama daan gars yi ko waaye dama ko jàpp dóor ko góor droite gauche mu fay ma fekk ko fa bëri xel mu ñëw ma làmb ñaari tànk yi mu ñëw ma war ko ndomb teex ko mu toog ma ne waaw non tooguma bu boo ko waxee damay ñëw. waaw mais waaw mais toog benn rek. barke bàyyi lay tooguma. mais mais ma indee. man comme hmm? ma dëggal sama ko ñaari indee mu daw ma coppe ci suuf. waaw xandaaloo man. Hmm. bi muy si biir xandaalu bi si laa defi trois appui. Eh, moom lamb ñu jox ko victoire bi bi. Ah, déglu déglu non li ma du ay caaxaan. deux xaar ko deux xaar loolu du nangul defet bi. bu yaa ko daan. waaw ah, revanche leer na ah, mais mais parce que yow lañ jox victoire bi nga ñibbi. mais jël la. boobu. waaw kon loolu wax nga ay champion boobu ba nga dëgg la dëgg a moom làmb ji jamono. non jamono jooju bi nga xamante ni moo nekk top niveau ci Sénégal. kon da nga bëggoon dala yoxusu. non dama yoxusu dem. dama ko mën daan ko. billaahi boobu bëri leen mbapat arène ngeen njëkk a tas arène lañ njëkk a li li ma gën a jaaxal mooy jamono yi dama téye mbapat mi kii dama ko xeeboon bi ma ñëwee <laughs> parce que dama ko xool ak dayo bi ma ne koy këlamti ko dem ndekete bopp bi dafa fees mu nax ma non damaa nax keroog du caaxaan damaa nax mais loolu nag laa moom laa teg soo bopp bi ba tey jii ma fekk ci plateau bi ne combat bi mënul ñàkk yow fu mu toll nii ku la fay ñaata nga bëri tafaagi non non prix bi du ma amul du ma du si prix Balla Gaye déggoon naa bu mu bëggee bëri Gris Bordeaux mu ne ko ko fay juróomi mu bëri Gris Bordeaux. kii ku mu xool man moo man moo gét moo gét mi ngi même di gën a mooy jëgg la mbay. Ah, moom laa bëgg mu woo ma sama digganteeg Tapha du am une minute. ñu juboo maag moom. ma promoteur boobu moom mooy day joxe. gars man moom laa bëgg si mu tëgg làmb ji. gars gars yi gars yi day joxe de gars yi du bale. Ah, xam nga moo gën every time it help all the people in the United States eh. yi xam nañ ko day help day jàppale. Eh. waaye kii kii xaaj kii dama ko daan jël bu xam. waaw loolu d'accord naa. revanche da ngay boole sa kese ak sama kese jox ma ko. dëgg la ma jox la revanche dama lay dolli. nu ah, eh, dama lay wax leer doy du caaxaan de dama laa daan da waaw mais lu rëy Sénégal ma keroog oh la ma na Moustapha Gueye daan yéen am ndam lu rëy xamul tax damaa ñëw si làmb naagu naagu xool dafa Gueye mu langaan ñaari yoon man a gars yi dafa dafa leen bagage yi mais mais man li mu bëgg a xam yéen ñaar dafa mel ni daje ngeen Espagne waaw parce que euh, Tafa Gueye 2 ñëw na Espagne ay 2006 waaw euh, yow nga mhm. yaakaar naa yow Tafa Gueye 2 bi ngeen dajee ci Espagne laa la woo leen foofu yàlla dogal na Espagne Darobé xale ne woon mais après la ñëw Murcia si ñun. Ah. mu ñëwee moom moog euh, dàllu bi ma àndal. Ah. waaw daal ñoo fa nekkandoo woon mu ñëw sama kër sama final ah. ñu ànd ak moom sama oto chaque jour di jëm. damay jël sama revanche sama revanche ci géej du gan la dama koy ganale. loolu doo ko mën a wax. parce que nag nit ku baax la boo bëggee dégg dëgg nit ku baax la woyof mbëri yëpp la amal jàmm mais dégg naa toj na Espagne yée kii Espagne kenn mënu ko fay dégg naa bu muy ñibbi lépp la dajale yóbbaale <laughs> loolu moo doo fay moteur bi loolu loolu moo gën da koy fay waa trop beexa natta ba natta bi natta bi la dajale <laughs> waa dëgg yow naka nga mën a yóbbaale ay natt boo xam ne dangay natt rek xamoo kañ ngay mais tam vraiment dañuy wax dëgg natt boo xam ne dangay xëy di natt di natt joxe sa ay vingt euros quarante di joxe di joxe. mais ko dénkoon. waaw ñu dénk ma xam ne ñii tamit ñu wéruñu ku yorul benn dërëm loo koy dénk ay millions. booy dénk ay millions ngay dénk ku yor ay millions. mais yàlla dafa dogal ñu yoroon bi. ñëpp ñëpp ay gars yi lañ. demee ñëpp dañ nekk jëlal. <laughs> garaawul ndeysaan ndeysaan mais combat bi nekk na combat bu ne mais est-ce que ñaar du ngeen combine. non non non non non combine. Eh, kii kii xam nga loolu tax du ma bëri moom. koy bàyyi du ma bëri moom ndax dama ko daan jël bu rëy. loolu doo bëri man loolu par force la non dafa moo gét day dalay ooteew téléphone te dina la fay man man. moo gét man li ma jaaxal. yow de da ngay yor salle fitness. di entraîner. waaw di yor ay nit yoo xamante ne yaa leen di tàggat. waaw mais ñàkkoo benn yoon ñu xam nga man gars yi ndox la ñuy naan. ndox lan. yéen ndox rek ngeen naan. yow boo ma xoolee sax xam ni man damay liggéey. gase ananas. ananas du. yow loolu doy gase ananas yow poids nga wut ba pare. gase ananas laa naan doo ñàkk. yow gase ananas man loolu li ma waxuma ko de man li ma xam nga mooy lan revanche bi. il faut que nga xam nga kii day diwoo ay frotté mais ma. mais xew na ci làmb ji ay diwoo ay frotté. non non non kii xam na ne sama combat moom moo dàq ci bi kii dama ko daan jël bu rëy. Sénégal teg mais nga ko revanche. non kii li li loo xaalis boobu gars est ma ko fay kii mu bëri moom kii. non ko baax xool ko xool nga xool nga ki may bëre. Ah. ki ma daanoon ak kii ndax benn la. waaw ah, loolu benn boobu jafe-jafe da ngay xool rek changement dafa am diggante bi kii damay ragal fii ci plateau bi sax mun na laa jege xaw a damm sa non yée bu demee masuwaat man ma tur bët bi <laughs> kii moom yaa ko gën a gaaw war ngaa mën dugg ci garde bi dugg waaye bu la dóoree ku ku ku dafa war a jël dix millions ndax mbër yi fay koy xaaj jariñu làmb ji li fi ñu dafa métti mais mais deux beneen fànn bi mooy yéen ñaar seen combat hmm? nee ay mbëru démb ngeen waaye ay mbëru tey hmm? a dekkal cosaan seen combat hmm. waaw te dama bëgg ñaar bu ñu leen tëggee combat ngeen ñëwee bu ngeen tuusee ba pare ngeen bàkku téye micro wax kii boo jàkkaarloog moom ci biir géew lan ngay lan ngay lan ngay bàkku non kii xam nga téel micro bi nga nga wax ma lañ nga koy bàkk bisimilah jàmm laa koy wax ramaa di jàmm sukkum dukum bilaay bi tënk séré ménk séré dama koy jat ndax dafa bëri ay rawaan kii su ma laalu si laay maxtaar bu ñëwee mën naa nekk gaynde mais su ma laay laay maxtaar barki bàyyi laay xuntu ba góor aji boo daay laay day wàcc ba suuf nu ma neex laa koy daanee mais xanaa yow am nga lu tontu boobu. non kii day wax rek. bu boobaa ban mooy sa bàkk. bu boobaa ma nekk sutukum mutukum sutukum maata mutukum say xërëm du ma jàpp say laar du ma jàpp kànnaar naa la doog a gis. kii xam nga ne. kànnaar kii mu ne na fu ne kii de bu kànnaaree. Eh. kànnaar am lu koy tijji. lu koy moom laa lay déglu. kanaan ko tijji amul caabi bi. bi bii amul caabi. loo ñu doon dindee pont yi mu tudd. non non non non xam nga ko raskul dafa dafa rëy ci kànnaar. mu ma ko tijji looloo looloo doon loo koy tijjee. raskulu xam li xanaa yow si xamoo raskulu. géey xam lu ma bëgg yow. waaw nga d'accord ci combat bi. nga ñibbi suba ñu woo la. combat mu ne ko ma moo géej du ma woo. da lay woo. ma xam laa la bëgg wax. waaw loo wax. ba bës a ngi di seetaan bu ñu fii léegi ma daan la. Eh, eh, eh, sëriñ Ba bu leen yàq sama baax ba ba kii dama la ba ba barki sëriñ Ba Mbacke ba kii du kii kii ngelaw la. kii ngelaw la barki sëriñ barki alxuraan karim ma kii ngelaw la. kii yéen kii boo ko ma ca baxal la nga toog. gis non mbokk yi mbokk yi lii la leen indiloon fii lañ koy yemale ndax kii ñii mën nañ dajj plateau bi léegi-léegi seen yaram a tàng oh. mais da di da ngeen may wool dàll foofu dàll mi nga xamante moom gaynde la te ponkal la mu attel ma leen léegi-léegi non waaw waaw waaw deux lan ngay tàggatoo parce que yaram yaa ngi tàng di nit ku baax de lan ngay tàggatoo yaram baa ngi tàng. ma eh, li may tàggatoo. mooy ne Sénégal njaay yëpp. maa ngi seen gannaaw. di gërëm ministre des sports. kii amigo mio mucho tiempo España. ay daat mel ne España regolome mucho dinero. Mm. Tafage donde está ven aquí comer pollo con arroz xam nga loolu. ay ceebu yàlla kii nan yàlla na la fa jàmm. mais daal loo may wax ak seen combat ñoom ñaar. Hmm? waaw balaa ma lay jël ñaari mbër yi toll nii di nuyu. Mm-hmm. sama bi nga xam ne moo ne ci caméra bi quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. seen combat fekkoon nag mais boobu xale laa nag quoi. damaa daf ko naax. waaw hmm? mu sànni gauche droite dafa jël ko. da wër da wër ko mu njaga di déclenché mu mu tur mu wëndal ak moom trois fois. waaw sànni ko. sa waay teg trois appuis mais trois appuis la nag. mais fi mu dafa war leer ah. mais trois appuis jël la. waa jël nangu na daan na la. waaw léegi bëri ma ak yow léegi. force la oh, force la loolu. lamb ji force. lamb ji yow dégg la bu ñu jógee léegi ñu xool ko. yow ba dina leer léegi. non te te jamono yooyu jamono yooyu. bu may fàttali ko boobu maa ngi maa daan déglu ay rajo affaire mhm. la woon. Mhm. kon daan na pire daan na man maa daan téye ay cumbukaay nekk xale bu tuuti. mais daan comme tey maa nii. Mhm. dafa daan ñëw daan pikin gépp gaa yi amal seen mu ñëw mais bu ma see ñëwee dañu ñëw rek fecc affaire yooyu noonu xam nga dafa xaw man fecc ah bi tas dem mais jamono yi bu ñu bëri woon tey jii man gën naa ne dañuy wax ne njagandooy mas naa daan euh, mais moom lan la gën a mën a ci bëri technique la amoon wala daa amoon doole dafa plaqué waaw yàlla dafa ma mayoon nag maam plaqué boo xam ni ak mm-hmm. noo mën a toll bu ma la fekkee fi nga taxaw bu ma la plaqué dama lay jékki dëggantaan loolu moom dëgg la mais man de jéggiwu ma. mais dafa moom ki dafa ñëw. non day ñëw quoi ndax ma. màggatum jinne la waaw dafa mën a bëre nag. waaw waaye daal combat bi daal vraiment foog mu taxaw. macha allah njëkk looy tàggatoo. waaw di santaat yàlla bu baax di kontaan ci plateau bi di nuyu su sumay sëriñ Baye Jibilaay Baye Adalaay di nuyu Mam Mbay mu Baye Sidi Thiaw di nuyu Thiaroye sur Mer gépp di nuyu tout le monde Babacar mi ma àndal aussi moo vraiment fi moo fendi parce que tamit nit ku baax la. ñu kontaan gis na ndax champion nga surtout dañ ko yàgg dégg ci live nan ah. dem ci bës tey wallaahi. Ah, waaw di nuyu di nuyu ñëpp daal vraiment su mun waa kër Ablaye Kébé tout le monde ah. waaw di nuyu tamit suma sëriñ bu baax a baax Baye Jibilaay. macha allah kontaan man nag bës foog ma nuyu yow yow toogal dama am leneen émission bu ñuy waajal ak yow macha allah gars yi lii la leen andiloon diggante Ndiaga Ndoye ak Tafa Gueye numéro 2 antaan naa la grand Dallo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 jëf TapTap Send soo téléchargé application bii di TapTap Send dinañ la may 10 euros ak code comme Lutte